الحمد لله الذي جازي من أحسن بالخير والمفاز الحمد لله الذي جازي من أحسن بالخير والمفاز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 cheikhuna ahmadou bamba xaadim rasul iske borom tuba borom tuba um morom yaarama maam cheikh ibrahima fall lamp asbil sutóori aslih umóori kasir xuyóori bi lakkidaahi sadid lisaani nawir janaani zabil amaani wasibarahi barka cheikhuna ahmadou bamba bokki julit yi bokki taalibe yi bokk yi niy jàkkaar lool ngeen di seetaan waaye diñu déglu diñu bàyyi xel bu ngeen gisee jataay bu sell bu barkeel bii ngeen xam nañ ci pàkk bu sell penc mu yaatu muy penc bokk ci lenn ci njabootu sëñ Bousso Bousso muy bis bi nga xam ne ci lañ di fàttali ko jenn jàmbaar ci doomi sëriñ Bousso Bousso yi muy kan ma samba Kandi sëñ Mbàkke Kandi sëñ Mbàkke Kandi bokk sëñ Massamba Kandi lépp nu ñaan yàlla su borom fayal nu jàmbaar joojee ci daraje ku tedd ki Seexul Xadim Seexuna Ahmadou Bamba Xadim Rasul kon xamaa ci tënk rek bu nga gisee bokk yi taxaw fa tara tarakalaaw jataay bi sell lool nu xam fa tarakalaaw day kër gu sell kër gu barkeel askan wu sell maasàllaa yalla na yàlla doole fayal ñi fi des yàlla yàggal fi lool te wéral leen di siyaar ak ndokkeel sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla Mbacké mu yàgg fi lool balay sa tawér waaye noonu la koy siyaare sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ Abdou Khadir ñu ngi koy ñaanal yàlla fan gudd la ak wér waaye siyaare njaboot sëriñ Touba Khadim Rasul gépp waaye nañ bere siyaar nag borom pàkk bi borom barab bi nga xam tey fa moo toog jataayu waajuram ba toog jataayu yu baax ko jiitu di bàyyi fallu moom sëñ Mbacké Kandi ñu ngi ñaan yàlla fanam yàlla ko yalla fekk yal na yàlla dolli wërëm ci daara jëkku tedd ki Seexul Xadim Seexuna Ahmadou Bamba Xadim Rasul tey jii di gaaw di dëppog juróomi fan ci rakk ji gàmm dëppog li nga xam ne mooy ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre atum 2020 xam ngeen ni ren dëkk réew mi ni mu doy waar tax na bis bi nu xaw koo waay fal waaye nag woyeful ndax naka jekk ñoom leen mi rek mooy jàng alxuraan jàng xasida berna dajale bokk yi saafante jokk bokk gi waxtaan yeeku dellu ci tey kon xamaa ci tënk rek maa ngi feggoog sama loxo càmmañ sëriñ Seexuna Buso daan ko jëbal sunu micro laaj ko bis bi ñu taxaw ki ne wootal mooy kan muy sëñ Masamba Kanni bëgg noonu xam kan mooy sëñ sëñ Mbàkke Kanni waaye gannaaw bu ñu xamee kan mooy sëñ Mbàkke Kanni ba noppi bëgg noonu xam bis bi luy sabab bi tey fii ci pàkk bi xam ni moo di Kodialé sëriñ Mbàkke Kanni la bëggoon xam kan la a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina muhammadin al makin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila yawmiddin ginaaw bi ñu yëkkatee nuyoo bu sell jëmale ko ci ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadoul Mountakha Al Bachir euh, di ko ñaanal suñu ko fi lool te may ko wér ba mboolem naal yi nga xam ne moom la naal ngir liggéeyal islam suñu borom defal ko ci kattan ak jàppandal ba eggale lépp te ñu ànd ak moom noonu la ñuy ñaanale ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne ba Kani mooy Cheikh Mouhamadoul bu Bousso ak mboolem ay rakkam suñu borom yàggal leen fi lool te may leen ak wér ba mboolem naar yi nga xam ne moom la ñu am yéene ngir liggéeyal ko seen maam suñu Mbàkke Kañ ak borom defal leen ci tawféex ak jàppandal ba lépp ko bëggee suñu borom jàpp defee ko noonu tey nag ñu nekk ci bis bu màgg boo xam ne euh, bis bu am solo la boo xam ne def nañ koy aj yu bëree bëri nga laaj nag laaj yu am solo muy kan mooy suñu Mbàkke Kañ laaj tamit euh, maanaam lan moo sabab bisu suñu Mbàkke Kañ bi mu nekk question yoo xam ne dana neex a tontu lool ci euh, euh, dana neex tontu lool ndax kat ki ngay laaj di kenn suñu bàkkikan ni kenn la woon ci njabootu Cheikhul Khadim gi waaye kenn la woon ci njabootu Serigne Bousso bi Serigne Bousso bi nag yaakaar naa moom ku ko xamut tamit dégg nga ko mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk joxe bakkanam ci yoonu murit te loolu nit ñëpp war nañ kaa xam bu baax te jàpp moom moo njëkk jaayante rotal bakkanam ci yoonu murit bi Cheikhul Khadim dem ci géej gi Euh, laataa ba dem ci géej gi sart yi nga waxoon moom moom ci la bokk li ko gàllankooram ba di dem bokk na ci Touba gi aar na ko ba kenn ku fu li fi lu dara du ko fu mën a gàllankoore suñ busoo bi mii tamit nga xam ne yàlla da kaa mu ñaan suñu borom suñu borom nangu ko kooku tamit na ko fii mi ngi mi ngi nekk ci àdduna sa liggéey bi du mën a yem ay fan lañ ci teg si muy suñ busoo bi daal di euh, jaayante bakkanam kon nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy bakkanam mooy ki njëkk a roj ci yoon murit kii nga xam ne moom la ñuy fàttaliku nag sëñ Bousso bi moom mooy waajuram te sëñ Bousso bi laataa muy samp kër daa am lu waxoon daa waxoon na suñu borom man bala maa samp kër kat damay ñaan di bépp doom ju ma jur na nekk wàllu fii euh, euh, suñu borom nangulu ko lool rek du ma samp kër bi ko suñu borom nangulee nag moo tax doom ju mu jur góor ak jigéen ñëpp ay wàllu lañ kooku nag kenn ci ci doom yooyu moom la ñu fàttaliku mooy sëñ Mbàkke Kan sëñ Mbàkke Kan nag euh, ñu xam ko bu baax a baax ci miin nañ ko bu baax a baax ci. jikko yi tedd tedd mu góor xam nañ ko bu baax muy euh, sëñ bu bi comme ni ma ko waxee léegi suñ ko doon taxrif tamit tax taxrif bu bu gàtt gàtt rek euh, moom suñ ba suñ ba suñ ba euh, kan yi nga wax ne 1884 yaakaar naa moom la moom la moom la gën a ba 1943 su ma su fekkee jaalu ma daj bi yaakaar naa moom la moom la fa gën a àdduna waaye diiru bi ñu fi nekk nag lépp rek. li suñ borom di wax euh, yàlla di wax naan euh, suñ yonent bi naan ko yow daal jikko yëpp su suñuy xool sa mbir yëpp daal waaye naka la xalaa xool xaa sin daal suñ ko jël mën nañu xam moo suñu bakkan bi naka loolu la ndax euh, diiru li fi nekk luy defar rek la fi nekk woon waaye mosu fee defar loo xamante ni luy yàq la kon kii ñu fàttaliku suñ bakki kan ni bokkoon ci njabootuk sëriñ bu sóobee bokk ak suñu masamba kan ni lépp ñoo bokk ndeeg bàyyi bokkul lépp sëriñ bi fonkoon leen tegoon leen foo xamante ni ñi fi tegoon bëriwut bokk na ci sax dañuy wax ne moom bokk na ci euh, euh, ñi nga xamoo si ñoo daa taxawal sëñ bi li mu a fonk mooy mbind bi mbind sëñ ñi ko daa bindal si ma samba kan sëñ Mbàkke Kan ci la bokk daanaka bindal ay xasaayid yu bëree bëri ay kaamil moom wax nañ ne lim euh, sëñ Moustapha May lañ jëlee ne lim bindal sëriñ Tuubaa ci kaamil toll na 63 kaamil lañ wax te loolu juróom ñett fukki kaamil ak ñett juróom-benn juróom-benn fukk loolu Euh, soo doon xool histoire yoonu murid histoire la wax histoire dama leen histoire ba histoire daj mosoo ke gis ku bind kaamil lu toll noonu te loolu nag euh, li muy firndeel mooy Sëñ Tuubaa ne ma ne malakanil qur'aana wal xuluma maam moom gi moo moom moom gi moo alxuraan <clears throat> da feeñal ci njabootum gépp moo taxoon suñ ne kii euh, ci mbokk ci doomam yi lu bokk wala ci ab taalibeem la boo xam ne bind na kaamil lu tolloog soixante kaamil loolu mën naa bañ doon kiim kiimtaan ndax loolu lépp day duggale rek ci kimtaanu Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa ba ay kimtaanam ku koy waxtaan ku ne ah, daanaka fi ngay fi ngay daal fanaan Sëriñ Mbàkke nag mu nekkoon koo xamante si yaakaar naa suñ ko doon ah, suñ ko ah, fàttaliku di di roy ci moom yaakaar naa liñ bëgg liñ bëgg ci ndaw yi tey lu bare bare danañ ci mën a ay saafara ndax kat ab jàngalekat la woon ab la woon waaye ab liggéeykat la woon daana jàngale daañ yare Sëriñ Tuubaa boole ko ak ay nit tamit mu leen i mu leen i defar di leen tërbiya mën nañ cee jër firnde kenn rek koo xamante ni dafa ñëwoon ci Serigne Touba di jébbalu Serigne Touba daal di woo si daal di daal woo si Mbàkke Kanni daal di booleeg moom daan na ko defar ko li ñuy defar koo xamante ni dafa war a jébbalu ba mu ko defee ba ko waxee ba mu ko defaree la mu ko war a defar lépp bu ñëwaat ci siñ bi siñ bi dana ko ëllëg yow la xiyaam kii yow laa koy laaj nee na booba dafa jooy dana kon ëllëg dinaa gis Serigne Touba nag ah, la tax Serigne wax ko loolu lam gis ci moom moo tax mu wax ko loolu sell gi ak ak ak ak yi nga xam ne si moom la moom la meloon loolu ma ngi commencé seen baay bi ndax suñ suñ Bousso bi daana wax ne eh, suñ baay suñ Seexul Xadim bi de bépp bool bu ma jox bu ma jox dafa set wicc damay duy rek tëj eh, damay damay duy rek kon set googu ma set moo waraloon daanaka moom ay jikkoom soo koy xool daanaka day yaatoo yaatoo duñ ci xool li waral bis bii nag ba mbokk yëpp daanaka. su jotee kenn ku ne bàyyi sa yitte daal ñëw daal di ñëw jàpp ji loolu lenn rek la li nga xam ni ñun ñëpp moom la ñu wut ci Sëñ Tuubaa te ñu ko am Sëñ Tuubaa dana dafa daa daa yónne woon benn bis euh, Tiwaawan euh, booba yaakaar naa mi ngi ceeñ jo mi ngi mi ngi mi ngi ceeñ jolof xuma gànnaar daan na wóole ma sama tali ba ñuy wax Mbàkke Kanni ñun nag màgguluñ juddug suñu Mbàkke Kanni màgguluñ bis bi mu gënee jamono. màggaluñ tamit bis bi nga xamante ni moom la moom la leneen waaye benn bis rek da lañu dàkk rek ci màggal mooy bis bi nga xam tey bi bisu tey yi bis boobu mu ko waxoon nag sama taalibe nga loolu rek la ñuy xool da ko dëkk ca màggal loolu nag doomi Sëriñ Tuubaa yi am na ñoo xam ne daanañ ci wax daan ci ñee la ko soo jëlee ku ñu mel ne Cheikh Mahamadou Fadal daanaka wax de ah man de seen baay daala wax njaboot gi daal seen baay de ñee ko lool ndax Sëriñ Tuubaa wax na ko sama te ñu ñëpp loolu rek la wut moom la ñu moom la ñu wër tamit moom la gars yi wër ginnaaw moom nag moom la ñu am ñu tax ñu ñuy barkeel ci bis boobu ngir bëgg a doon ay taalibe Sëriñ Tuubaa yoo xamante ni euh, kenn du laam lame ba xam ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ te loolu nag yaakaar naa ku ñëw ci bis bi barkeelu ci am naa yaakaar ne lam nga waxoon suñu borom mën na la caa duuraale nga doon taalibe Sëriñ Tuubaa loolu moo tax ñu dàkk bis bi euh, muy euh, juróom fan ci rak ci rakk ji gàmm ñu dàkk ko dëkk ci fàttali ko ngir jàngat ay jikkoom loolu lépp rek Euh, lu ci nekk rek ab darsa lay doon ay leçon lay doon ay jàngat kon xam naa dañuy taxal foofu kàddu gi suñu ko mënee dolli leneen incha allah. Euh, tubarkalla mbokk yi ñoo ko déggandoo bis bu ne lëm gën a morom ja la ca xew la kon juróomi fan ci rakk ci gàmm ku tedd ku barkeel ka Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim Seexna Ahmadou Bamba ki dimbali jaam yi ci la woon jàmbaar jam mbokkam ma ka jëlan ak bokk lépp jënd koog taalibe wooye ko ni sama taalibe bi wala taalibe bi muy sëñ Mbàkke Kan yi ji lañ ko fàttaliku nu ñaan yàlla suñu borom dolli ay leeram te taas kon xam loolu mën a wax ci yóbbalu bis bi rek ci taxawaay bi ren euh, ni mu taxawee rek bu ko dee ñu jàll ci ñeneen ñaari nit rek mën a tàggatoo waaw taxawaay bi xam ji wax nga ko léegi ci commencement ji ni mu bindoo dafa xaw a euh, jéggi day wa ndax soo xoolee dañoo fi nekk ci jamono joo xamante ni suñu borom dafay wàcc ba mu natt boo xamante ni dafa daj àdduna bépp ba kenn ku ne daanaka foo mën di nekk rek gis nga sa bopp foo mën di nekk rek daanaka gis nga bopp taxawaay yooyu nag sëñ bi nag daa jox woon digal am na wax naa am na ñoo xam nañ nañ màggale nii ñun nag daanaka ku fi nekkal suñu tubaab lu mu xas ba wax loolu ci lay ci lay murid yëpp di tënku te ñun nag ñun nag bañ na ko ba bis bi nga xam ne leen dong ma tax ñu ko fàttaliku mooy kii sama taalibe la te taalibe kenn dong lañ bëgg doon mooy Seexul Xadiim moo tax Seexul Muntaxa bi mu ne nañ màggal gi nañ ko màggal màggal goo xamante ni maam nit ñi nu ñu gën a woyof rek nu ñu gën a kii rek màggal ko màggal goo xam ne sax ci biir mbokk yi rek lay yem buñ euh, euh, bañ bañ a sonal kenn mu yem ci biir mbokk yi ñu wàccee kamil su ko defee daal benn di euh, berndeel ñi fi ne su ko defee ñu daal ñaan daal di yeewu moo tax ni ko suñ bëggee woon rek ren noonu rek lañ ko defee ba suñu fenn daanaka soo xoolee boo daanaka amul benn fu ñuy def ay ay dajaloo yu metti daanaka moo tax daanaka loolu li ko siñ bi waxee daal ci loolu lañ tënku ba fii nii nii nii ci ci la ñuy dox naka sëñ bi bëggoon ko màggal daal am naa yaakaar na ñu ko raw sax yaakaar naa defar nañ defar nañ ko noonu te loolu lépp rek ah, day wane ne fonk ndigal li nga xamante si ni maanaam njaboot gi fonk nañ ko ndigal lépp loo xamante ni sëñ bi jox ne ko ndigal bëgguñ caa des ginnaaw ci benn ci benn ci benn anam moo tax ñu def ñu defe ko nii soo xoolee soo soo soo fi daan ñëw ajee ci ginnaaw mhm. ñëw fi tey da nga xam ne bés bi tey wute na lool lool ndax soo masaan ñu heure bi ku ne nga fi daa gis te tey ji yaa ngi ne gis nga ko mu yaraax a yaraax kon nag loolu waaw côté ñëw na tamit waaw waaye yàlla ñi si Mamadou Fadal mii fi nekk daal yi nga xam ne moo fi nekk suñ suñ suñ mbàkki kan ni suñ borom yàggal ko fi loolu tamit ko ak wér ba mboolem naal yi nga xam ne moom la naal suñ borom yàggal ko fi ak mboolem njaboot gi yëpp rek kon ñu taxaw foofu wasalaamaaleykum euh, tubaarkalla bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al wa ala wa ashaabihi dawi ridwaani wa mbokki jullit yi mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yi mu di asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ndokkeel bu baax di e, ci bis bu tedd bi bis bu màgg bi nga xam ne ci lañuy fàttaliku jàmbaar ju tedd ja muy seex sëriñ Mbàkke kànni Bousso di doom ci sëriñ Bousso bi tey jii nag ku ne xam na ne fii jamono toll ba tax ñu soppi ni ñu ko daan mm, fàttalikoo di ci jàng alxuraan ak xasaayit waaye di ci fàttaliku jëmm ju tedd jooju comme ni ñu ko waxee tey nag ñu toog ak suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne ku ci mel ne sëriñ Seexu Bousso ak sëriñ Abdoul buso ñu fas yéene ñu ñoo waxtaanal. sëriñ Seexu mu waxtaan ñu diggante sëriñ Mbàkke Kanni ak sëriñ Masamba Kanni yaakaar naa ku miin ëttub waa kër sëriñ Mbàkke Kanni miin nga fa ëttub waa kër sëriñ Masamba Kanni ku miin ëttub sëriñ Masamba Kanni nga fa ëttub waa kër sëriñ Mbàkke Kanni ñoom ñaar benn rek lañ du ñu ñaar lu koy firnde mooy boo ñëwee ci bis bi danga nga yëg ne ñoom ñaar benn lañ ko woo xam ne amuñu ñaar kon moo tax sëriñ Seexu dañuy laaj euh, nga leeral mbokk yi li séqoon diggante sëriñ Mbàkke Kanni ak sëriñ Masamba Kanni bisimilah. bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatoo eh, ginnaaw buñ nuyoo bokki fi nekk yépp ca jiite ci nuyoo bi sëriñ Faddu Bousso mi nga xam ne moo nekk eh, kilif teefu ki dama yor kilif teefu kër si Mbàkke ak kër si Masamba Kanni ndax eh, di sëñ bi wax rek tudd na mën naa tudd e, ëtt waaye genn kër gi la muy sëñ Masamba ak e, sëñ Mbàkke Kanni e, ca cosaan ba nga ni ci li ma xam képp ko ma a mag ci ñaari kër rek yaay kilifa ñaari kër yëpp lool nag mooy dox ba fii mu toll nii ndax lépp lu ñuy defal lu ñuy wax sëñ Fallu mi nga xam ne mooy kilifa ak sëñ kër sëñ Mbàkke Kanni di kilifa ak sëñ Masamba Kanni moo ci jox ndigal moom na ci diglu ñu ko nuyu baax di itam mbooleem ñi nga xam ñooy ay di leen siyaare ci bis tedd bi nga xam ne eh, dañ koo woote ngir eh, di ko dundal ak di ko fàttali ko seen baay bu baax boobu yàlla ne ko yàlla fayal ci daraje Xadim Moustapha eh, ñuy sant yàlla nag ci kàddu yi ñu ci jox bu donte ne matuñu ko mënuñu ko waaye am na loo xam ne ku la ku la ko jox daf laa yéene aw yiw daf laa yéene aw yu rek waaye lu ba ma ci xamoon dara yaakaar naa ne eh, ñoom ñii ma jox kàddu gi dama ci waxloo te jële ko seeni kilifa lañ ci xam xawma ci genn wàll ga ñoom ñaar nag eh, seen diggante eh, lu yomba leeral la ndax dañuy magarak yoo xam ne ñoo bokk lépp bokk tam fuñ bàyyi ko ci wet yëpp ndax ñoom ci ak bokk dañoo génn suñ tubaa ci genn wet ndax kan ni mbàkke mi nga xam ne moo leen bokk nekk seen waajur ñaari ko seq ñaari ko seq mooy ñan mooy Mor Jee ak Aysa Mbàkke Aysa moom mi mooy taw Maam Balla Aysa mu tudd koy waajuram boo tudd Maam Balla Aysa nag da daal tudd Sëñ Mor Anta eh, daal tudd Maam Haram ndax ma euh, maam Balla ku ne xam ne ne mooy caatu maam xaram ci li ñu xam waaye Mor Dieng moom itam nag nga ne mooy seen wayjur boo ko tuddee mooy wayjur que ne boo tuddee da ngay tudd Ibrahima Ama Niang boo tuddee Ibrahima Niang da ngay daal dem ci maam kon wet googu wet yomba leer la waaye boo dikkee ci wetu mbuso bi nga xam ne ci lañ bàyyi ko tam euh, boo tuddee si mbuso bi rek tudd nga soxna jaara ñu bokk lépp teg ci nga xam ne kon ñoom wet goo natt ci suñ tuwaa rek. benn ñu doon euh, euh, gaaw ba nga xam ne jaayante gi am na ñu jaay seen bokk képp jënd ko ak talibe te Sëriñ Tuubaa nangul leen ko ba dafa nangul leen bokk gi boo ko xoolee rek da xam ne Sëriñ Tuubaa mën naa nekk seen wajur ci gu nekk waaye tamit mën naa nekk seen doomi nijaay wala yooyu wala yu xeet ak moom ci bi nga xam ne mooy di yàlla toftale adduna ak ak bokk waaye ñoom loolu gisuñu ko woon lañ gisoon daal mooy nangu dogalu yàlla bi nga xam ne yàlla def na ko ci moom xam ne yàlla ko wàcce mu jëmm joo xam ne yi kenn melu moom euh, euh, euh, teral leen ko ñu nangu loola ànd ci ak moom ci nangu itam nanguñ ko rek yam ci ngir ngir leen dañ ko nangu nangu ñu rafet ànd ci ak moom bi nga xamante ne toll nañ ci jàng tam nag jàng rek ba xam li war a xam lépp bañ xamee li xam tam seen xam-xam boobee jëfandewuñ ko niñ ko jëfandikoo ci seen diine waaye jëfandikoo ko ngir bëgg daraja walla lu mel ne na dañoo fab lépp jox ko suñu Tuubaa Euh, suñ tubaa ànd ñoom ci jamono yi nekk ndax ma Masamba moom mi nga xam ne moo doon mag bi muy dem gànnaar moo ñaari doomi ndeyam yi ñoo àndoon mooy sëñ Bakk Kanni ak sëñ Birahim ndax ñoom ñooñu sëñ Birahim Ndiaye moom na xam ne moo seen ndey ñoo bokk ndey ak baay bañ demee gànnaar tam jox sëñ Tuubaa seen bopp joxeen wu rafet yeesalaat ko na fekkoon lu jiitu loola suñ bu soobee joxoon na askanu mu soobee yëpp sëñ Tuubaa loolu tam lu di leer la ndax euh, dañoo wax ne <coughs> benn bis ku baax ki muy Seexul Xadim daa ñëw ci euh, Sëñ bu soobee laaj ko ñaari laaj mag ñi wérin laa ko jëlee ñaar laaj mooy lan def na laaj na ko ndax asamaan si moo téemoon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Sëñ bu soobee daan na ko waaw moo ko téemoon de moo daan na ko kon dara wëyut demaat ba mu yàgg mu di sax ndax suuf si ci la doon ci la doon dox. mu ne ko waa suuf si ci doon ndox mu ne kon dara wëyut bi mu ko waxee loolu nag suñ bu soobee koo man maqama ci borom la moo xam ne xëy na kii denc yàlla bi doon ñaan ñoom di ko ñaan suñu borom suñu borom kon may ko ci kii e, fekk booba wax nañ ne si mbàkki bu soo mi nga xam ne mooy ñaari doomu ci góor ñi gone gu ndaw la eh. bokk ci gone tu tànk la woon mu daal ko woo mu ñëw mu ne ko Ahmadou mu ne ko mu wuyu ko. mu ne ko lépp la askono ci man jébbal naa la ko def naa ci nag sëñ Mbàkke su mii muy seere nga ànd ak moom keroog lu ko jébbal sëñ Mbàkke Buso ba mu waxee loo tam sëñ Tuubaa da koo nangul da koo nangul boo déggee sëñ bu Buso wax naan kenn ku nekk nga naan mën a waaye bu ñu demee ba yomal tubal saraay ñëpp dañu xam ne bu Buso mii foofu la ko teg ci muy tegu tegukaay wax ne bii tegukaay mënu ko féete kaw moo njëkk jox boppam sëriñ Tuubaa ci ndigalu sëriñ bu soobee ak askan bu soobee ba Sëriñ Tuubaa tam da ko nangu ca képp ko gis muy dox tam ñu nangu la Sëriñ Tuubaa nangu la sa saw nekk sa sa sa sa njëbal ci moom rek ngay wut kon loolu euh, gaa bu bu fekk bokk gañ bokkoon ak moom dañ koo jaayaan jënd ko ak bi waaye ñoom nag daa yëmut dañoo yëmut ci rek ñoom ñii dañoo yëmut ci rek li leen seen bàyyi fàggul ndax bu la sa bàyyi fàggule tam la nga bëri xënti wa dëgg dëgg dëgg dëgg fexe ba fa sa baay jaar ba mën a fàggul yow mën faa jaar ba mën a fàggul ba mën a fàggu moo tax ñoom joxoon Sëriñ Tuubaa seen bopp fépp fu Sëriñ Tuubaa ma sa dëkk tam ndax nekkoon naa ñoom gànnaar nekkoon naa ñoom mu jógee gànnaar nekk naa ñoom jolof ba mu jógee jolof tam nekk naa ñoom njaareem fu ma dëkk mi mi dëkk ñoom eh, sëñ ma Samba doon koo xam ne kii déggu na Sëriñ ci ay wax lépp lu Sëriñ Tuubaa di waxtaanee da koy woo baa moo woo sëñ ma Samba Mbàkke waaye sëñ Mbàkke mi tam eh, lim liggéey Sëriñ Tuubaa àgg na ci Sëriñ Tuubaa àgg na ci eh, ñam bi nga xam ne sañ li li mën a jëfandikoo li muy jënd ko ci ci ñam li tuuti tuuti mooy kafe yeeg yu mel noonu àggoon na ci ne lu Sëriñ Mbàkke kan ni defarul rek ji liggéey ci loole eh, araamal na ko ci moom loolu maqaam mënu ko féeti kaw dama dem ba xam ne li li si li Sëriñ Tuubaa mos ci kafe wala ma ko mos ci leneen bu ko defarul bopp nag yaa koy defaral loolu maqaam ma féeti ko kaw ci àggoon nag si Mbàkke kan foofu si Mbàkke kan itam dund mu dund ci at bi nekk Sëriñ Tuubaa ci ay kaamil xam nga loolu tam euh, ma féetoo kaw euh, moo tax nag ñoom ñaar ci noonu lañ doon dund euh, ñu daan ñoo xam ñu mënoon rafetal ak bokk la ca xam nañ ko rafetale ndax nit ko tofoom su réewuñ ci at ndax nit ko tofoom ay ñaari at ñett mooy seen diggante waaye nag kilifteef gi nga xam ne Sëñ Mbàkke joxoon ko Sëñ Masamba Kanni jéggi na ab dayo bañ na ko ba bi mu nekkee moom léppam da koo joxoon mën naa la wax sax wutun dara ci boppam loolu jox ko woon ne sëñ sëñ Massamba da koo ëpp xam-xam wala mu magee ko lu bari déedéet da koo joxoon ngir xam ne lii kat mooy li nga xam ne mooy doxal li leen suñ borom subhaanahu wa taala dénk dundal ak bokk ak rafetal ko ak toppante ndax suñ suñ maam maharam mii nga xam ne moo la bekk moo ñu ñoom ñëpp daana wax ne bàyyi naa ne loo xam ne day benn ko yàqut benn ko yàqut fu nit mën di nekk ci ci wertaange dana dana leen fekk jox leen ko muy toppante joxante cër joxante kilifteef loolu ñoom ci loolu lañ doon lañ doon dund bi sëñ Massamba Kane wàcc bi itam nam def daa ñëw toog ci kër gi dir bu yàgg ngir toqanteel ay doom ay doom ba nga xam ne ay doomi sëñ Massamba Kane ñooy doomam taxaw leen taxu bu rafet ba samp leen bañ dëgër loolu tam sëñ Mbàkke def na ko ndax xam ne ne kee dem na waaye moo fi waaye dem na waaye demut. ndax mooy moom moo moo moo ñoom kenn ku nekk ci sama yaay sa morom mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla lu rafetoon la la jëf la joo xam ne itam képp koo xam ne kii xam nga ci dara xam naa ne ñi gone sama classe gi nga xam ne ñoo dox ci kaw suuf si jamono jii war ñu defaat gëstu bu baax a baax ci ni mag ñi nekkee woon war nañ ci gëstuwaat bu baax a baax ndax mag ñi liñ joxante woon seen bopp ca warante amul ca ni joxante seen bopp nga kenn ku nekk sa morom am moo la gënal sa nga am loolu. ak ni ñu toppantee woon loolu moom euh, ak ni ñu joxante woon kilifteef ak ni ñu joxante woon warma ah loolu moom war ko gëstu bu baax a baax ci li ñuy li ñuy jàng war nañ cee boole loola ñoom nag loolu la ñu doon dund euh, doom bi ñu fi bàyyi seen njabootam fee si maram ma fa magoon fii bàyyi Cheikh bu su mag fi bàyyi Cheikh bu su man xam naa ko bu baax waaye ñoom ñaar benn lañ woon mosuñoo tàqal ko ci dara dara dara dara. monsieur Alcantara si Marano moo jiitu waaye bëriwul ñaari at ñaar di toog ci ñeenti at wala yooyu loo koy jiitoo waaye teewu tam ba ñu jógee tam ba fi si ndaam nekkee tam nekk fekk njaboot si si si si si mbàkkan gi fa des li tàmbali si si si si si réew mi nga xam ne moo fóotoon si ba ci bay Serigne ñoom ñëpp ay benn lañ woon seen kilifa gépp dañ koo faboon jox ko si ndaam bu si mi nga xam ne moo doon seen seen seen mag ànd moom ànd bu rafet duñ xëccoo moom dara lépp lu mu yëkkati ñu ñu ñu ànd ci ak moom noonu lañ doon dundee te bu fekkonte ne mën mënal sa bopp képp la bokk man wala wala wala mën nañoo demal seen bopp ndax kii ñi kii ñuy jox seen kilifteef amut yoru leen yoru leen ci seen adduna lu tax ñu war ko mën a jox seen kilifteef waaye laaj ñu ko tam ci wàllu seen diine lu tax ñu war ko jox seen kilifteef waaye jëmmi yàlla jee xam ne moo leen boole woon ak bokk moom ca digg leen ñu sàmm ko moom leen sàmm doon ko rafetal loolu nag mooy dox. ba ci Baye Fall mi toog tey ci xilaafa gi ñu ñaan si borom subhanahu wa taala yàlla yàgg fa lool ci biral ko ku mel ne Baye Serigne moom dafa jéggi day moom moom moom moom ni daa daa daa wut jóg kër si daam du ko noote woon fu nekk ànd na faak moom moom daaw fa jóg benn yoon jamono yi mi ngi koy nem mi ngi koy dem ci moom Baye daam sax Moussa Tukki jàmm tey mujj di ànd ak moom loolu lépp wane na rek seen lépp benn rek la moo tax lépp seen lépp benn la loolu nag day jëf joo xam ne eh, lii ñu def nii Eh, lu mat di def la toog di leen waxtaane di leen waxtaane di di fàttale seenu nekkin ñoom ndax ñu man cee xam suñu bopp ñoom ndax adduna dafa amul solo dafa amul solo ndax ci lépp loo fi am ca amoo kilifteef loolu amul la njariñ lépp lu fi waaye wax wax wala xeex ba ba ba am ca ndam wala nga wut ko ba am ko ca antu kilifteef man Cheikh Abdou Samad soxlawuma loola man Cheikh Abdou personnellement wallahi naa sim soxlawuma loola kon nag ñoom lii ci lañ nekkoon ñoom di dundal diine na seen diine ñu do ñu def ci def ci seen kem kattan ca boo leen fekk ci ak taalibe bi da ngay jàpp ne amuñu xamuñu dara ci seen diine ndax nañuy do nañuy jëflante Sëriñ Tuubaa duñ xoolee sax luñ xamal ak luñ xamal lépp dañ ko jox Sëriñ Tuubaa ba mu jeex boo leen fekkee tam ñii rafetal ak seen bokk seen bokk day jàpp ne ñii dañoo doy di wa ilaa day sàkku ndimbal ci ki muy ki muy ki muy jox ak kilifte wala yu mel noonu waaye nag ko ñi nga xam ne xamoon nañ leen xam ne ne ñii di doon def yàlla kese kese kese moo tax ñu di ko def yàlla kese kese moo tax ñu def bañ na ko gis ngeen ko nii bi ñu dëkk ñoo bokkoon dëkk gerte biñ bañ nekk njariñ ñoo dend woon ay kër biñ euh, biñ ñëwee fii itam ci àll bi di liggéey itam pencum daaru xaadim ngi nii pencum ko jëlee ngi nii pencum euh, tëy sir ngi nii kër si mbir yaam jaay mosuñoo tàqale ko ñoom seen lépp rafetoon seen lépp rafetoon seen doom itam seen lépp rafet xol yu sell yor yu baax yoo xam ne kenn ko ci nekk la ngay jox sa moroom ci sëb cër eh, jéggi na dayoo ñun ñii kay ñoo dese ci war a xool suñu bopp ñu ngi ñaan nag eh, suñ borom subhaana wa taala dimbaluñu ba lu wëlbatiñu ba jaar lañ ci yoon yi xam ne suñ kilifa yii ci lañ jaaroon ba agsi fii ñu agsi yal na yàlla dimbal ci loola ndax mën naa ñaan eh, maa ngi sant nag. yéen ñi nga xam ne ma ci wax kàddu bu donte ne lii ma ci wax lépp sax amut solo ndax xuma ci ñoom lu mu mën a wax waaye nag dimbali ngeen ma ndax faaw ma jël fi tuyaaba joo xam ne ji fa moo mënoon fa mënoon xëyti mënum fa am ci ji toll noonu maa ngi sant baax di yaana suñ kilifa yi yàgg fi lool ci ànd ko wér di ko ñaanal sëñ Fallu bu soom mi xam ne mooy kilifa Kasim Bakkan ni di kilifa Kasim Samba Bakkan ni di ko ñaanal tam rakam yëpp di ko ñaanal sëñ El Hadji bu soom mi ne moom moom la teg ca euh, ëttu Kasim Samba Bakkan ni mu nekkal ko fa ak mboolem ay rakam di ko ñaan tam yéen ñi xam ne sama rak ngeen ci amu seen pay moom dama koy wax fii mu leer nañ amu seen pay ndax jox ngeen ma daraja ak cër boo xam ne bi wallahi xam naa ne ma ko waaye seen baax tax ngeen ma jox yàlla leen yàlla fay ci taxawal leen tubaarkàlla man daal euh, sama xol sedd na jeex na yàlla yàlla fay ci taxawal leen loolu rek laa man mënu leen jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf xam naa Serigne Cheikhou ñu ngi sant bu baax a baax ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne moom la Serigne seexu doon wax léegi ci diggante sunu maam yu tedd yooyu muy Serigne Mbacke Kane ak Serigne Massamba Kane yaakaar naa li mu ci leeral ko ko jàpp da nga ciy jëlee njariñ ndax euh, li waral ñuy fàttaliku jëmm ju tedd jii muy jikkoom yu rafet yooyu nga xam ne mooy moom la mel woon te borom bi subhaanahu wa taala taggoon ci sallallahu alayhi wa sallam noonu nag loolu la ñaari euh, jëmm yu tedd yooyu ànde woon muy diggante Serigne Massamba ak Serigne gis nga jëlee na ko ci ni ñu ànde woon ni leen yàlla boole ci mbokk waaye wëlbatiku nag rafetuñ lool aw àndin ci seen diggante ñoom ñaar waaye nag mënoon naa yem ci seen diggante ñoom ñaar waaye dafa ñëw ba ci njaboot gi dafa ñëw ba ci njaboot gi njabootuk sëriñ ma Masamba ak njabootuk sëriñ Mbàkke ñoom ñëpp dañoo jaxasoo woon daan jëflante ci jëflante bu rafet kon loolu day firneel ne kon sunu jëmm yu tedd yooyu daal ñu ngi doon xeeñcu mboorum sëriñ Touba loolu nag euh, yaakaar naa ndaw ñëpp war nañ cee jële jàngat ndax euh, kuy fàttaliku jëmm ju tedd ji ci ay jikkoom moo tax nga di ko fàttaliku te jikkoom yooyu bokk na ca li borom bi subhaanahu wa taala di wax ne wa taqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham na ngeen ragal yàlla te bàyyi xel seen mbokk kon ñoom ñu bàyyi woon xel seeni mbokk la gis nga yàlla da leen a boole ba bërëb yi ñu ànd yëpp yi yiñ bokk yëpp ñoo ko ñoo koy dendandoo ni mu ko sëriñ bi waxee léegi bokk na ci ba bërëb bi ñu tëdd sax ñoom ñoo ko bokk kon loolu firndeel ne ànd googu sunu borom daf leen a boole te ëllëg yow mal xiyaam noonu la ñuy àndiwaat kon yaakaar naa mbokk yi ak ak ak mbokk gépp war nañ cee jàngatewaat bu baax a baax a baax sëriñ bi ñu ngi sant bu baax ci kàddu yu rafet yi di ko ñaanal suñu borom gën koo dëgëral gën koo kàttan la ci darajay Seexul Xadim xam naa di ñëw ci sëriñ Abdou Lahad moom yaakaar naa miin nañ ko ci béréb yu mel nii mu fas yéene ñoo waxtaanal ci waxal ci kàddug euh, sëti sëriñ Mbacke Kane yi kàddug sëti sëtu sëriñ Mbacke kani yi ci la sëriñ Abdou Lahad di di di di di wax bisimilah. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wa inni su bika wa suriyatahaa mina seytaani rajiim. rabbi auzu bika min hamazaati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yahduruun mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu tuwéral ko di ji teg bàyyi sëriñ bu soobe bu sa mi nga xam ne mooy xalifu sëriñ bu soobe waaye di ñëw ci kilifa at bi ñu nekk di jàmbaar ju màgg ji ju tedd ji ju am pastéef ji di sëriñ Fallou Bousso moom Serigne Mbacke Kanni mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Mbacke Kanni ak ci turu ay rakkam yëpp ak njaboot geeg sët yi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu mbooloo mi lëkkale sëti Serigne Mbacke Kanni yëpp ak soppe yi di leen nuyu nuyoo bu jot ci kenn ku ci nekk dara ja nga yellool ñu fekk la fa nga nekk teg la ko. sa loxo muy nuyoo bu waa mbooloo mi yëkkati teg ko sa loxo ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di sant yàlla bu baax mi fekkalewaat bis bu tedd bii nga xam ne mooy bis bi nga xam ne tey ñi ngi fàttaliku Serigne Mbacké Kanni tey di gaaw di 21 novembre 2020 dëppook 5 rabiu zani 1440 hijriya te ñu baaxoo def at mu jot ren ñu def ko nañu ko daan defe lu ca dajale nit ñi ñi ko digal ñëwee ci nun def nañ ko luñ ca daa def lu ca dajale nit ñi def ko ndax loolu tamit kër gi moo bindoo noonu kër gi mooy këru ndigal lépp luy digal bu jógee ba yegsi ci kër gi noonu la ndigal loolu la kilifa gi di jëfee te sunu kilifa gi ci bopp kër gi di Cheikh Mahamadul Fadal ku ko xam xamoon ko digganteem ak pastéefam ak ñi doonoon kilifaam di magam mësta xëccoo ñoom ci dara mësta werante ñoom ci dara mësuñoo bëgg dara mu bëgg la leen te loole day mel ni moom la ko yàlla dimbale fayee ko njaboot gi muy doomam yi rakkam yi ak sëtam yi ak sëtaat yi yëpp kenn ku ci nekk rek loolu sëriñ Fallu yëkkati dafay doon lu doon bànneex ci yow looloo waral tey jii ñun du xëy fii xëy ci alxuraan ji ak ci xasida yi ak salaatu ala nabi ngir lañu ko daan defal ñu def ko togg ay bernde yenn yi ñu yóbbu ko ci ñi fi nekk li ci des ñu yóbbu ko ci daara alxuraan yi ngir bernde dafa bokk ci fàttaliku mag ñu mel nii defal leen bernde dafa am solo moo tax lenn li ñu defal ko ñu fi nekk ñi ci des ñu yóbbu ko ci daari alxuraan yi nga xam ne ñenn ñi ñi ngi jàng fañ nekk alxuraan di ko jàngal sëriñ Mbacke Kane ni jataay bii tamit jàng nañ fi kaamil yu baree bari kon loolu mooy li nga xam ne sët yi ñoo ko taxawu ci ndigalu seeni waajur ak seeni kilifa te fa lu nekk ci bopp ba di leen nuyu bu baax ak sant bu baax ci taxawaay bu mat bi nga xam ne mboole mbokk yëpp ñi ngi koy woy di ko taxawee ci saa bu kër gi soxlaa muy sëti sëñ Mbàkke yi ak wëllër yi ak xarit yi ak taalib yi kenn ku ci nekk taxawaay yi ñu ci war a taxaw ñu ngi koy taxaw ba dara di sëriñ Mam Mbàkke mii njiitul sët yi waxoon na ma ay jotal kàddu yu mat sëkk ci kilifa yi nga xam ne bokk nañ ci sëti sëñ Mbàkke yi ñu jotal leen ay cant bu baax ngir bare na doxin wu yomb woo xam ne bu amee sët yi manko kenn ku nekk jàpp feen fenn tax loola jàpp kon ñu ngi sant ñoom ñëpp di leen gërëm bu baax a baax di santaat bu baax nag kilifa yi nga xam ne tamit yàlla sunu borom dafa dogal ñu bokk ak ñoom mbokk gi ci ñu doon ay kilifa ci noonu bokk ci sëti sëriñ Mbàkke yi te kenn ku ci nekk nga jàppal sa bopp bis bi jàpp gu sëkk ba ñu ngi ko séqal ñëpp xam ne jàpp nga bis bi mboolem ñi ñu yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waaye di ràññu ak cant bu baax ci sët yu jigéen ñi ak sëtaat yi ci seen taxawaay ci teewaay bi bu ñu leen soxlaa. ci teg gi seen alal ak ci lépp loo xam ne luy doxal mbooloo mi la sëriñ Mame Mbacké nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax ngir liggéey bi bu yombee ba tax mu mel ne waxtu nekk mi ngi dox ni mu war a doxe kenn ku ci nekk danga jàpp wet ga nga jàppee ba tax mu rafet kon ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm waaye nag di leen soññi bu baax nag ci nii ñu ko defee ren jii ñu ñaan yàlla buñ ci eggatik déwén ñu waajal fekk lii yëpp ndigal ñëwaatee ñu mën koo jëfe ni ñu ko daay jëfe fekk sët yëpp kenn ku nekk taxaw na ba lañ waroon taxaw ñu man ko defee noonu kon nag ñu ngi soññi sant sët yi ci li su nii di leen gërëm bu baax a baax waaye nag di leen soññi bu baax ñu wàccaay waa baax lépp lu ñu defoon ren ñu gën koo yokk te teel koo waajal teel koo tàmbali ba buñ ci eggee fekk kenn ku ci nekk la la ca war dana fekk nga mën koo def ci yu baree bari ci joxe bi ci teewaay bi ci organiser ci nos gi lépp mën a am kon ñi ngi sant sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi ñaanal ñëpp ñi ngi sant nag képp koo xam ne yàlla dogal na nga daa ànd ak ñun bis bii ti bu yàlla dogalee ren jii mu demee nii mu demee ba yëgaluñ la ko na la leer nu cant ka ñu la daa sant démb ba nga daa ñëw sant gu raw googu lañ la sant tey ndax bari na ci ñoo xam ne suñu nanguñ koo feeñal fenn ngir xam ne ñoo xam ne buñ ko yëgoon te waxuñ leen ko sax danañ ñëw moo tax du communiquer du dara luñ ci def ngir xam nit ñi xéer gu ñu xéer ci kër Sëñ na yàlla sunu borom dogal na ñu xumtoo ko ngir fexe ba yi ci des ci alxuraan yooyu ñu tasaare ko ci daara alxuraan yi ñi fi mën a teew ci njaboot gi teew fi jàng alxuraan xasida salaatu ala nabi ñu defi mbedd yóbbu ko ci daara yi noonu la ñuy def te ñaan déwén ñu fekk ñu soog kook jàmm kon nag ñu ngi sant képp koo xam ne daa nga fi taxaw wala nga ci daa teew wala nga ci daa def say trang wala nga ci daa def sa doole wala nga ci daa jàpp noo ci mën di jàppe daayira bi ak kilifa yi ngi lay jottale ay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax ndax lépp mën na alxuraan ji man bari na xasida yi bari na lépp bari na kon nag ñi ngi sant bu baax ñi ngi gërëm bu baax di soññ bu baax nag ci dëkk bii nga xam ne fii ñu nekk di ko jale ñoo xam ne dëkk nu mu mel nekk ca dëkk ba yilif dëkk ba ñooy tax dëkk ba mel na war a mel soññ suñu bopp di soññ mboolem ku bokk ci njaboot gi ñu fa seen gën a dëkk bi bu baax lépp lu waaye nit xam ne lu baax la su ko xalaatee wala mu joxe ko mu dëng ci dëkk bi yàlla dogal na boobaa bu ko defee boppam dong la ko defal ti suñu jàmbaar jii di Serigne Fallou nga xam ne moo nekk ci bopp kër gi ku am pëseef la te sëñ Bakkaani joroo ko lu ne sëñ Bakkaani jaral na ko taawam jaral na ko alalam jaral na ko ñaxam jaral na ko léppam ku xam ne ne gis nga nii mu def nii que sëñ Bakkaani gaa ngi taxawal na ko ba miir ko ba noppi te am na yeneen naal yu baree bari yoo xam ne naal na ko ci dëkk bii te loolu nag bu koy man ñun ñii nga xam ñun la njaboote ñun ñoo war a nekk ci lu mu yëkkatu lu nekk ñu ànd kook moom ngir mu yomb ci moom kon ñu ngi soññ sunu bopp ñu di soññ ñëpp ñu ngi jaajuwaat fippuwaat gën a góorluwaat ci lépp luy jëmale kër gi kanam te xam ne kër gi kenn ku ci def ku ne sa bopp nga defal képp koo xamante ne kër gi dox na tey bu doxee yow la doxal lépp lu ci jëm avancement sunu was la ndax sunu ndono la muy sàmm sunu ndono joo xam ne moom la ñu sëñ bëkk ni bàyyeel kon nag ñu ngi sant mboolem koo xam ne yàlla dogal na lu ñu ci yëkkati nga ànd ñun ak képp koo xamante ne yëkkati nga ay daraja lu mu ay ay ay ay ay ay xéewal wala lu man di doon yoo xam ne daa nga ko def di ko ànd ci ñun ci bis bi wala ci bis bi ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant mboolem nag ñi nga xam ne daal jàpp nañ ci bis bi ak ñu ci mën a jàppe ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp bu déwénee jàmm ñu fekk waat ko te yàlla saafara jàngoro yëpp ba ñëpp di ko wàcc tal ak ko fekk ci bàkk gërëm nañu leen ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mi jàppale mu boole ñu jàppale ci bàkki sal xadim nañu ko daan waxee rek loolu nag nañ koy waxee njaboot mboolem njabootu sëriñ Bousso beeg sëriñ Sa ak sëriñ maam Mor Anta Sa Maram ñëpp teew nañu fi nañ ko daa waxee ca teewaay ba waaye bis bii tey dañuy wax ne ñoom ñëpp tamit ñi ngi wax ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk teewaay ba nga fa daan teew bis ni tey dii jàpp nañ ne teew nga fi ànd ko ak ñun ndax boo ko yëgoon na nga ko daa yëgee noonu nga ñëw teew fa ak ñun kon nag teew googee ñu laa teewal seen i li tax ñu ne teew nañ dañoo xam ne seeni xol teew na ndax ku ci yëgoon teew te ñi ko ci yëg ñi ko ñi ko ñi ko ci ñi ko ci yëgut tamit ku ko ci yëg danga def ñaan ngir noo mel ci kër gi kon ci turu sëti sëñ Mbàkke Kan yi ci turu mm, wëllër yeeg xarit yeeg sopp yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu fekk waat ko déwén ti mànd ak wér te yàlla sunu borom yàggal fi eh, Cheikh Mouhamadoul Fadal mii nga xam ne mu nekk ci bopp kër gi ak mboolem njabootu sëñ bu soobe gi ak mboolem cheikh yi sëriñ Touba yeeg ñëpp rek yàlla jàppale ñu ba ñu bëgg ci dëkk bi am ko ci yéen yàlla sunu borom def yeggale ko di santaat yàlla bu baax nag ndax liggéey bi ñun dañ ko gënoon yor suñuy loxo waaye ndaw yi nga xam ne ñoo ñu feetu suuf ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ndax kenn ku nekk ci ñoom futtiku nga laxasaayu nga jaajuwaat nga ngir lépp loo xam ne luy joxale kër gi kanam la ak liggéey bi kanam la kenn ku ci ne ko yotte dara muy dox kon nag ñi ngi leen di soññ yéen ndaw yooyu te xam ne lii rek mooy yoon wi bu leen tayyi bu leen sonn bu leen yu xat na ngeen jaaju jàpp ci te xam ne bu dee booyee ñun ñëpp la jabal kenn deful ngir kenn bu kenn def ngir kenn kuy def na def ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Tuubaa tubaak jëm siñ ba bakkan boo defee rek lépp dana jag di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nga yor kàddu sëti sëriñ Mbacke Kane yépp waaye ni nga ko waxee rek ñu nit ñu ngi leen di sant yéen nga xam ne yéenay suñu kilifa ndax kenn ku nekk lam téye dafa am ñu ko ko téyele ba mu agsi ba mën koo jàpp kon yaakaar naa seen taxawaay bu dëgër moo waral tey bu bu ndaw ñi téyee ngir ne loolu dañ koy taxaw mooy yéen ñi nekkoon ci kaw yéen a ko téye ci téyenu rafet kon ñu ñu nit ñi ngi sant sunu kilifa yëpp kenn ku nekk yaakaar naa ameel nañ la cant goo xam ne lott na ci suñu làmmiñ waaye ñu ngi leen di ñaanal ci daraje jëmm ju tedd ji nga xam ne moom lañu ñu doon fàttaliku sunu boroom defal leen tawféex àdduna ak alaaxira sàmmal leen boppam ci daraje Seexul Xadim kon ñu ngi leen di baalu àq te di leen jéggulu di jéggulu mbokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Fii